si Wade avait fait la même chose un moment, si Wade n'a la grandeur parfois de s'arrêter, est-ce que Macky Sall serait aujourd'hui président Non. Le 29, la sécurité, la stabilité de ce pays, à partir du 29 et jusqu'à je ne sais de Macky Sall. Soit cette manifestation, cette lettre d'information introduite doit avoir une suite favorable des autorités qui vont dire qu'ils vont encadrer comme ils l'ont fait le 8 jàmm ne ñooy ils ne font pas le 29 ce ne sera plus que Yewwi Askan Wi ce seront de ce pays qui pensent qu'il pour que notre démocratie qui est déjà à terre plus à genoux qui à terre qu'il faut le préserver pour que toutes les luttes qui ont été menées dans ce pays qui pour que toutes ces luttes ne par la faute d'un pouvoir assoiffé de pouvoir je le dis le redis si Macky Sall et son administration n'accordent pas à Yewwi Askan Wi le droit constitutionnel à la manifestation pacifique comme ça a le cas le 8 façon paisible le 29 sera l'affaire de toutes les forces vives de ce pays commençant par par toute la société civile les mouvements citoyens toute cette majorité silencieuse qui à la maison et pas normal c'est pas juste je vais terminer pour dire qu'on a commencé à travailler, même avec la société civile. avec le doyen Aluntine et tout le groupe de la société civile, on est en train de travailler en il y a marre signataires et d'autres seront signataires pour qu'à l'international, une lettre va être adressée au rapporteur des Nations Unies sur les questions de liberté, de droits de l'homme et de démocratie. Il y a d'autres initiatives comme ça à l'international, mais au niveau national, il faut que tout le monde se mobilise. Et ce message, il s'adresse à tous les citoyens. Ce n'est plus le 29 encore à à une opposition. Mais figurez-vous qu'en 2022, que le Sénégal soit un point où l'opposition, sur un processus électoral, il dénonçait quelque chose, elle dénonçait quelque chose, elle ne dénonce plus cette chose. Elle court derrière, derrière l'exercice d'un droit constitutionnel. C'est ça. Yewi Askanui maintenant, c'est ça, c'est maintenant qui se bat pour exercer une liberté constitutionnelle. C'était ça mon message d'introduction. Avant de donner la parole à Kat, qui va faire la version en Wolof, et après revenir aux questions-réponses. Merci beaucoup. baax na waaw salaamaaleykum euh, yéen taskatu xibaar yi salaamaaleykum ñëpp ñu nekk li ñu setaan ci réew mi ak ci bitim réew di jébbal suñu njaal officiel ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ñu koy jox seen ay waajur di ko jaal Sénégal gi yëpp moment ay doomi réew ñàkkee seen bakkan ci coobare ak euh, xarañte ci def lu bon ak xarañte ci suuxal ab réew seeni njaboot di leen di jooy ña ànd ak Macky Sall ñoom da tàccoo ko bàkku ci rey yii ñu rey Sénégalais parce que wax ji loolu la bu ay nit dee nga matt tàccu mooy danga ngaa ci ñu rey kon ñu ngi jébbal suñu njaal officiel famille yooyu di naqarlu ak ñoom di leen wax ne bu mu fa ñëw di indi ceeb ak xaalis parce que loolu la mën rey la ba noppi rey sa doom ba noppi indil ko ceeb ak suukar ak xaalis famille bu mu ci fekk ci di la yóbbul ceeb ak suukar neen ko dàq ci biti doo rey sama doom ba pare di ma indil ceeb ak suukar Aliou Sané wax na ko léegi Sénégal dafa nekk ci dundu tartar boo xamante ne musut am ci histoire Sénégal muy gàcce bu rëy Afrique gi yëpp Sénégal gàcce la fi am fi ne nii fu ñuy romb dañuy yolos yolos ñu nekkoon réew moo xamante ne nii tabbal ñu ngi ko tagg ci kaw nit ñi di ko di ko magnifier ci suñu démocratie foo tourné ñu naan la Sénégal waaye léegi soo dee sénégalais Mali sax boo fa demee da ngay da ngay yolos yolosi dugal sa doq parce que gàcce bi ñu Macky Sall teg ci àdduna bi yëpp ci delloo ginnaaw suñu démocratie delloo na suñu démocratie ginnaaw ba nga xamante ne ñi ngi ci réew moo xamante ne kenn mel ne la kenn mënatu fee nooy kenn mënatu fee sëqat kenn mënatu fee wax ndax Macky Sall def na réew mi un état policier moyen yi mu jël def ko ci réprimer maanaam def ko ci dóor jàpp xoqatal tiital tëj kaso opposant activiste ak képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne àndul ak moom su defoon genn wàll gi rek ci assurer la sécurité des sénégalais kon jamono ji yëpp kenn du fi wax ay waxum agression ay waxum rey ay nit ay waxum nangam ak sangam mooy maanaam moom programme am ak planning mooy indi kawo ci Sénégal indi jiixi a jafe-jafe ci Sénégal pour mën a imposer sa dictature sa sa sa son état policier moom moo la gën a xam ne loolu du jàll commencé woon nañ ko ñaari ay bës ci ginnaaw ne ñi ngi dem ci tournoi bu am solo ndax conseil constitutionnel saa buñ ko séentoo ci wax lu amal solo askan bi mu wan ñu nañu askan bi nekkuma fi kamay jox ay avantage ay oto ak ay salaire yu ñu yokk kooku laa fi nekkal muy président bi nekk di exercer le pouvoir ci jamono boobu defoon na ko ci jamono Abdoulaye Wade mu ngi koy defaat ci jamono Sall mii bokkoon ci ñun ñii doon kaas naan conseil constitutionnel bi baaxul décision mi baaxul tey même conseil constitutionnel boobu noonu moo nekkaat di ko appliquer la mu namm ci réew mi muy lu garaaw nga jóge ci conseil constitutionnel bi wàcc ci ki nga xamante ne moo war a organiser élection yi ci boppam kooku mooy problème bi fan François sax Antoine Félix Diome c'est lui le principal problème parce que munoo organiser ay jongante ba pare di football waaye mais finalu Sénégal Égypte moo Mo Salah mënul woon nekk arbitre ba pare football mënul ne mënul ne te Macky Sall ci boppam à dafa kaasoon révoqué Ousmane Ngom ba Abdoulaye Wade wane grandeur changé ko indi keneen pour ñu mun dem ci ay élections yu apaisé mais tey ñu ngi fàttaliku ci Aly Ngouille Ndiaye def na woon du ko def duma ko def du ko def bi yoon waxul duma ma ko def patt la ci def di def la ko soob di def la ko neex waa ji ne fi di wax lu ko neex di jël décision yi ko neex ñu indi réew mi ci instabilité boo xam ne musut am di créer ay mbirum rebelle yow même l'Assemblée nationale amuñu accès sur le fichier de la Casamance ñu jël le problème de la Casamance sérieux bi mu sérieux ci ñun waa askanu Sénégal ñu teg ko ci espace public bi seen ay saagakat ci internet bi di wax naan ay rebelle dugg nañu Sénégal jàpp nañu rebelle bi ay procureur génn di ci wax ay waxu daanu ci saret ci lu dem ci mbirum sécurité intérieure Sénégal ñu am gaz am pétrole am leneen ak leneen nga xam ne réew mi almet buy kosu réew mi di tàkk ñoom ñu jël almet bi di ko foyee ci buntu gaz bi nga xam ne kon ñi liggéey taxu leen jóg taal réew mi moo leen tax a jóg ñu ne li conseil constitutionnel di waajal décision bi mu ci war a jël dafa am solo na liir la droit élection dafa am règlement ku war a bokk ak ku warata bokk la tax nit di bokk soo ko remplir da nga bokk la tax nit du bokk soo ko remplirul bul bokk waaye li ñu gis mooy conseil constitutionnel bi jëlul responsabilité dafa pire pire dafa dafa saaga le droit lu conseil constitutionnel a insulté le droit insulté xelu sénégalais yi saaga képp koo xam ne yow professeur yooyu fa nekk ñoo la jàngal ci université yi wax la ne la lii mooy droit ñoom Omar a ngi fii si ginnaaw ay étudiants lañ ñoom nee nañ xàmmeetuñu seen ay professeur ils se disent que du kii wala du ñii ñoo leen doon jox ay cours seen classe parce que lépp lu ñu leen jàngaloon salfaañee nañ ko teg nañ ci seen tànk pour plaisiru Macky Sall pour banneexu Macky sàll ak njabootam. conseil constitutionnel bi génn décision boo xam ne éliminé na ay liste yu bëree bëri bëri bëri ñi ci société civile bi wax nañ ko sànq gëm sa bopp bu buggaan wax nañ ko jàmmi bu ñoom Fadel wax nañ ko ñoom Serigne Mbu mais ñu ne li gën a ti ñaaw mooy mu ne yow équipe nationale bu Sénégal day fubal yi waaye Sadio Mané Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Gana Gueye yéen du ngeen fubal remplaçant yi ñooy ñoom ñoom ñooy fubal ñii duñ fubal waaye moom équipe am ay kàngamam yëpp danañ bokk yow nan mu ngay fubaleeg nit ba pare ne ko yow waaw say kàngam duñ bokk man samay kàngam kese ñooy bokk loolu waxu caaxaan la sénégalais ngeen comprendre ko noonu soo nee waa ji say remplaçant ñooy bokk titulaire duñu football mooy match ña nekk titulaire bokkuñu mais yow say say say say remplaçant ñooy ñëw ñu football ko ñu ne ko nag conseil constitutionnel vraiment yow nag bii nag moom moo moo xadd kaaba gi décision bi nag moo xadd kaaba ga parce que nag fooye droit à ce point fooye ay article yoo xam ne ñoo ko toog tëgg ko ci suñu mum réew ngeen jël ko foye ko dëggate ko comme ça musut am te gàcce la te l'histoire retiendra te bu leen yaakaar ne parce que tey Macky Sall mooy tooyal seen ceeb kër suba ëllëg kenn du leen ko fekkee kenn du leen ko toppee kenn du leen ko fàttali yore njaboot ci mim réew di jël yenn décision yi ak di taxaw yenn taxawaay yi dama defe ne fàtte ëllëg am na moo tax la ci la coalition yeewu askan wi jël décision def marche ñëpp naan marché bii wala lee wala lee mais en toute responsabilité ñu def yëfu mag organiser ay milliers de sénégalais ñëw ci place bi fees del amul kenn ku ko mën a lam heure bi jotagul sax pare nañ ku ne dem nga sa yoon bañ nettoyé fa def fa la ñu war a def mais ñooñu bu ñu woote waatee manifestation te yow jàmm rek tax laa jóg mais ki defoon wan la laajaat pour defaat mais jox ko jox ko mu def Macky laisse les gens manifester Aliou Sané wax na ko léegi jamonoy Abdoulaye Wade dem na benn benn moment on demandait plus les autorisations on n'adressait plus de lettres au préfet dañu dem ba obélisque dafa nekkoon place Tahrir bu Égypte dañuy ñëw rek dem toog Wade jël sécurité teg ko buntu RTS ne fii bu leen fi romb bu leen dem place de l'indépendance ci la loi Ousmane Ngom bii génn tey bi bunkeriser Dakar aaye nit ñi ñu génn mu ne yéen bu leen romb fii teg cordon foofu les gens comme ils chaque jour loolu mooy démocratie mais dama gis naqar bi sénégalais yi di gonfler seen biir xol yi coono yi sénégalais yi di dund jafe-jafe yi sénégalais yi dund soo leen bàyyiwul ñu exprimer ko ci nii ñu exprimer ko ci nee te loolu moom mooy dëgg Macky Sall ci histoire Sénégal mooy président bi ci gën a jógee ci ndóol parce que ndóol ci la màgg nan ngay màggee ci ndóol xam luy ndóol dugal sénégalais yi ci ndóol man dama defee woon ne ku amoon ku xam luy ndóol di nga fexe ba sa askan duñ dund jafe-jafe ndóol waaye yow yow ndóolal nga askan bi xiifal nga askan bi fajoo askan bi jàngaloo askan bi joxoo liggéey askan bi mais di màttu rek ay li fi amoon du fi amaat lu raw moo am keroog le 17 bi nga ko aayee lu raw li amoon mars daaw moo am parce que su dee mars daaw ay milliers de sénégalais ñoo génn nga rey ci 13 bii li génn matul noonu ci dayo bi mais rey nga ci 3. kon proportionnellement lu ko raw moo amaat parce que da rey trois ci fukk bële nga rey treize ci junni yow rey rek kil tué de sang-froid balle réelle qui a commandité cela et jamais on aura de coupable duñ mës a am ku ñu jàpp ne kii moo rey xale yi kenn du ci mës a indi lu leer chaque fois ñu rey ay doomu sénégalais te kenn du ci indi lu leer ñu lay xamal ne la Macky bii yoon le vingt 29 bii nii opposition bii di yooyu askan bi woote waat na soo leen bàyyiwul ñu def seen manifestation ci jàmm comme ni ko suñu constitution waxee soo leen bàyyiwul ñu def li nga xamante ne c'est leur droit ñoom ñoo ko moom ndayu charte réew mi moo ne fépp fu sénégalais ne nga am lu la naqadi moo xam jaadu na jaaduwul mais dalaa naqadi yow am nga droit nga dem yëgal autorité bi ne ko damay dem ma ñaxtu ko li ko war mooy mu ñëw ne la fii bul ko dépassé fii nga ma wax heure bii bu jotee demal ndax kat soo aayee manifestation la nga ciy def ci matériel def ko ci police def ko ci lacrymogène def ko ci ndox mu tàng def ko ci tiital dëkk bi ci mobiliser suñu frères policier yi du ñu lekk du ñu naan soo ko defee ci encadrer une manifestation du sax tollu un quart bi dix policier dix policiers mun nañu sécuriser une manifestation autorisée dix alors que une manifestation non autorisée il te faudra mille à Dakar mille à Guédiawaye mille à Pikine mille à Ziguinchor mille ailleurs parce que partout dans le Sénégal les gens vont manifester mu neex la mu naqati la munoo ci dara et dans la diaspora c'est que Macky ña lay yónni ña ngay bañ ñu yëg ne Sénégal mu ngi yëngatu waa France yëg nañ ko Macky bàyyi bu naqat sa bopp at na bi yëg nañ ne Sénégal am na guuta baaxut tout le monde est au courant France gi ngay bañ mu xam ne Sénégal yëngatu na yaa ngi fokkati droit yi ils le savent seen ambassade baa ngi fii am nañ ay renseignements généraux ils savent tout ce qui se passe ñoo la ko gën a xam te France moo mee la ngemb moo la gën a xam ne askanu Sénégal du nangu mu foye ko France boobu ak occidentaux yooyu ñoo la gën a xam ne askanu Sénégal yeewu nañ askanu Afrique de l'Ouest ci en général yeewu nañ que yooyu dootul amati. que ay préfet ñëw fii te ay chef de canton yi ngeen di yabal ñu ñëw fii sous préfecture di ñu jiite di ñu foyee di ñu nax la loolu jeex na fi te bientôt ils vont te lâcher ils vont te le montrer parce que ñoom ñoom seen ay intérêt moo leen tax a jóg parce que xam nañ ne askanu Sénégal kenn àndu ceeg yow su amee ñu ànd ak yow it motuñ fukk kon ñu lay wax ne bàyyil sénégalais yi ñu manifester ñun de li ñuy wootee mooy képp koo xam ne démocratie moo la tax a jóg liberté moo la tax a jóg bëgg Sénégal moo tax a yëf yi doonatul affaire u yeewi askan bi dafa dem nekk nag léegi mbirum Sénégal ci boppam nekkatul affaire yeewu askan bi affaire Sénégal la parce que suñu démocratie bi ñu xeex ba moom ko moom Macky Sall musul nooyi lacrymogène waxoon naa ko fii ba muy indi maire gàddoom bi it bi 18 heures 30 jotee dafa ne pëccet dem musul fekkee fu ñu sànnee lakk lacrymogène xamul xeex xamu ko xamul jafe-jafe xamul métti xamul raak musul raak looloo waral pour moom raag bi moom day jël durée waaye bi yoon Macky di nga raag de Macky di nga raag parce dañ pare raag nga yow dañoo pare pour raag te Sénégal gi yëpp ay képp koo xam ne démocratie moo la ñoŋal di nga raag incha allahu rabi le 29 bàyyil nit ñi ñu dem manifester si jàmm bu ñu jógee ci le 29 ñu bëgg a manifester waat le 27 ak le 30 ak le 40 bàyyil sénégalais yi ñu manifester parce que fii ba élection yi di ñëw Macky bàyyi ngaa am jàmm ci mim réew parce que ñun amuñu jàmm. munuñ ñàkk jàmm nag nga toog sa pale di am sa jàmm yow du day yomb munul ne munul ne soit tu le pays ci ay réglement ak ay droit ak li war soit ñu won la ne la ñun boo ñu joxul boo tegee droit suñ kaw ñu jël li ñu askan bi li ñu li ñu li ñu suñu constitution may mais jàpp ay député te dindi woo seen muraay euh, kiiraan jàpp ay maire jël ay nit opposant tëj leen bunkeriser leen Aliou wax na ko léegi jamonoy parrainage noonu la ñu defoon ñun ñëpp kër Simon ñu xëy war a départ Kër Simon mu teg cordon buntu Kër Simon ku génn mu jàpp la ku génn mu jàpp la stratégie yooyu nga xewal amul problème kon incha allah dañ ci dem ak yow le 29 incha allah bàyyi sénégalais yi ñu manifester bàyyi waa Yewwi Askan ñu def seen manifestation on appelle tous les sénégalais ñu génn massivement li nga gisoon keroog lu ko quadruple ngay gis parce que toute cette force silencieuse ñu ne woon patt toog naan mbirum Yewwi la ak Macky tey jii xam nañ ne nekkatul mbirum Yewwi dong mbirum Sénégal ak suñu démocratie et nañ suñ démocratie lam ñu jaraloon 2011 lu ko raw la ñu jaralaat tey te dinañ la ko woon incha allahu rabbi kon euh, loolu laa ci bëggoon a dolli di wax ne que ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee société civile bi nga xamante ne ñoo fi jiitu ñëpp ci Sénégal daanaka nekk ay leader ci Afrique ñoom bind nañ bataaxal boo xam ne ñun signé nañ ko xam naa ñeneen dinañ ko signé pour dem ci Nations Unies dem fépp foo xamante ne droit lañ fay wax pour fàttali leen ne Macky Sall mii ci biir Sénégal la Sénégal amoon ca démocratie yëpp. salfaañe na ko foye na ko yàq na ko dëggate na ko xotti na ko et lu ko neex la nekk di def c'est un dictateur buy ñëw fii ci Afrique de l'Ouest pour que ñu ñaawlu ko ci àdduna bi comme ni ñu koy ñaawloo fii ci réew mi di artu nag di yëgal suñu famille yi suñu parents yi suñu kilifa yi di leen wax ne ñaari nit bu ñuy xeex nga ñëw fekk ki yore fetal fekk keneen ki taxaw boot ay loxoom nga ne ko yow mi yore sa yow mi boot say loxo bàyyil xeex bi déet ki yore fetal kay ngay aaye aay leen ki yore fetal bu ngeen ko aayewul dinañu boom ndax ñun kese du ñun rek ñooy dem ñun ñëppay ñëw te nee nañ la Sénégal jaral nañu lum la jaralul yow Macky Sénégal jaral nañu lum la jaralul yow jaa ngeen jëf. Donc, euh, on va aller directement hein, euh, avec les questions-réponses, s'il y a. OK. On va avec une première série, ouais. Bonjour à toute l'assistance. Bonjour, chers confrères. C'est Ousmane Chan de CNews.com. Alors, euh, ma question est la suivante. Avec euh, tous les problèmes qui gravitent autour euh, des élections législatives, ce que vous pensez que cela va se tenir, ces élections vont se à date échue, c'est-à-dire la Cour Euh, juin prochain. Et aussi, euh, par rapport à la sortie de Zelensky hier, qui disait que l'Afrique est l'otage de l'invasion de l'invasion russe. Alors, qu'est-ce que vous, avez à dire par rapport à ça C'est un commentaire, merci. Euh, Jérôme Dion de 2ATV. Bon, j'aimerais savoir, avez-vous déjà contacté les leaders de Yewe Askanwi pour euh, tenir la manifestation ensemble Bonjour à tout le monde. Euh, cher Fall, Dakar Actu. Je voudrais juste euh, savoir euh, ce qui vous a retenu Euh, lors de, euh, de, ces, de, cette euh, dernière manifestation, bon, la, la, la manifestation du, du, 17, qui a en quelque sorte avorté, on peut dire. Qu'est-ce qui donc d'engager de, le combat en même temps que, que Yewe Askanui, comme vous l'envisagez pour, euh, pour le 29 Bonjour à tous, Absa Anne, journaliste à Seneweb. Euh, tout à l'heure, vous aviez dit que vous allez soutenir euh, Askanui si jamais euh, euh, la, manifestation n'est pas autorisée. Mais en même temps, vous disiez que toutes les deux listes devaient être éliminées. Donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire, surtout euh, avec le fait que Yehui Askanui, en ce moment, se bat pour faire accepter sa liste Euh, man dama bëggoon en fait Thiat nga ñëwaat ci olof par rapport ak euh, li Aliou Sané wax que bu ñu autorisé wul manifestation bi le 29 que da ngeen di wàcc euh, loolu laa bëggoon nga ñëwaat ci olof mais j'ai une question aussi c'est ñu bëre dañuy laajte fan la Y'en nekkoon ba tey jii nii on voit l'opposition surtout Yewwi Askan Wi devant où était Y'en a marre et pourquoi maintenant vous avez décidé de sortir de votre mutisme qu'est-ce qui vous a poussé quand

Yewwi Askan Wi les gars je pense que il faut quand même faire la part des choses quoi je pense que Y'en a un patrimoine national euh, bi ñu sax ñun c'est un cadre citoyen à chaque moment d'un processus politique yi dafa am li seen li ñu moom mouvement citoyen mu am li mu moom de façon légitime Askan Wi sur le processus électoral ils ont fait en coalition politique ce qu'ils devaient faire quand ils ont senti qu'il y avait une injustice comme tout groupe de citoyens ils ont appelés à se mobiliser. Comme parfois, Yanamar appelle à mobiliser sans l'opposition. Donc vraiment, il faut faire la part des choses. quoi. Nous, le processus, en tant que mouvement citoyen, on a on a alerté, et quand il fallait lever la voix pour s'adresser au Conseil constitutionnel, le en garde, on l'a fait. Yewi Askanui a manifesté le 8, ça s'est très bien passé. S'ils si, manif avaient manifesté le 17 et encore le 29, ils vont le faire sans problème, on n'y serait parce que c'est des acteurs politiques qui sont engagés dans un processus. Ils ont estimé qu'ils devaient lever leur voix pour dénoncer des choses. Ils ont le droit de le faire en tant que coalition politique. Si vous voyez même, euh, la, le plateau du 8, c'était carrément une manifestation de askan Askanui. Qu'est-ce que Yann Amar aurait pu aller faire là-bas Je pense que même si vous nous y aviez vu le 8, vous nous auriez dit, écoutez, le mouvement citoyen que vous, vous êtes, ce que plateau bi waroon ngeen ci nekk donc il faut faire la part des choses on est un mouvement qui a son identité nga xamante ni contrairement ak yenn organisation société civile yi quand yenn question principe yi bu posé woo on n'hésite pas d'être sur dans la même lutte avec l'opposition c'est notre particularité parce que ñu ci bëri ci société civile bi dañuy refuser que pouvoir mu juger leen ñun on n'a pas peur de ça mais pour autant il y a des lignes de démarcation qui doivent être bien que Y en a sur le champ de mouvement citoyen, tant que les choses évoluent comme il se doit, avec chaque acteur positionné là où il doit être et faire des choses qui son en conformité avec li mu doon loolu vraiment bëggu naa même yéen ngeen ñu ciy jàppale parfois nga dégg presse bi ne mais lii lu tax gisuñu leen ci fekk en ton âme et conscience yow journaliste bi ko posé xam nga ni lii normalement du fi Y'en a marre war a nekk parce que mouvement citoyen la et que dañ ko war a préserver Y'en a marre ñun ëppaliwuñ ci kenn ëppaliwuñ ci kenn c'est un patrimoine national Fadel a dirigé, il est parti. Aujourd'hui, je suis là. Dans quelques temps, je ne serai plus là. Il y aura d'autres. Donc, lolo la quoi. Et ça, c'est, je tenais vraiment à faire. Euh, et, et, malgré ça, on a été là. S'il a fallu sur les listes, on a parlé. Nous avons le Conseil constitutionnel. La décision, il faut qu'elle soit juste. Bignouaré, pendant l'ouverture des inscriptions, allez inscrire. On a sillonné le Sénégal. Tu nous as suivis à Guédiawaï. C'est notre rôle. en tant que mouvement citoyen. On nous a connus dans ça en 2011. Et, et, et, et d'ailleurs, pour l'histoire, tout le monde, la plupart, bon, pas tout le monde, mais beaucoup, pensent que Yanamar de Foujoudurek dem contester. Alors que non, quand Yanamar est né et que les jeunes brûlaient des pneus, on a dit Das Fananal. On a dit la meilleure manière de sanctionner le système, c'est d'aller s'inscrire sur les listes. On est allé sensibiliser un peu partout. Euh, ci processus bi aussi à chaque fois lii suñu rôle moom la ñuy def mais parfois quand il y des questions comme ça qui doivent faire lever tout le peuple toutes les composantes du peuple parce que c'est une question de principe il y en a marre des jóg et su boobaa opposition c'est des Sénégalais comme nous ëppalewuñu leen ci réew mi ça ne nous complexe pas d'être à leur côté sur des questions de principe voilà donc loolu amul problème aussi quoi Les élections vont-elles se tenir dans le contexte actuel, le climat actuel euh, du processus électoral ne mène pas vers des élections apaisées. Ça, il faut le dire. Nous tous, et c'est ça qui fait mal au cœur, parce qu'on est des républicains, nous tenons au respect du calendrier républicain. Et c'est ça la difficulté. Mais au rythme où vont les choses, nous sommes dans un impasse. Si si nous fonçons, nous butons sur un mur. Donc nous pensons qu'il est important que, que, que, toutes les parties prenantes, pas Yewi et, et, et Benno seulement et tout, c'est pas ça, mais toutes les autres coalitions qui sont engagées, même ceux qui ont contesté euh, les résultats du parrainage, je pense qu'il y a un travail d'ailleurs qui est en train d'être fait dans ce sens pour qu'il y ait des concertations, euh, que ne soit lésé surtout, que les gens puissent s'entendre sur des choses. Parce que l'heure est grave. Encore une fois, ça nous mène vers des élections qui peuvent être très compliquées pour la stabilité de ce pays. On n'a rien de tranché dessus, ce n'est pas un oui ou un non, mais on a une lecture et un avis dessus. Donc ça, c'est notre avis. L'Afrique otage, de, je pense que ça, c'est un autre commentaire qui sort un peu du, euh, de, du, du, du, cadre de, de, de, cette conférence de presse. On pourra en parler par ailleurs. quoi. Est-ce qu'on a contacté Yewi Non. On n'a pas besoin de contacter Yewi. On n'a pas besoin. On est un mouvement citoyen qui est autonome, qui a jusque-là observé, qui a donné son avis, qui a observé le 17 jusqu'au dernier moment à penser que ce régime allait quand même revenir à la raison. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, c'est une question qui touche la démocratie, nos libertés et l'état de droit. Et personne ne doit attendre personne. Yanamar n'a jamais attendu personne sur quoi que ce soit. Donc on n'a pas contacté Yewi parce que c'est de notre responsabilité historique qu'il s'agit. Nous prenons cette responsabilité et donnons notre voix et faisons cette sortie euh, d'aujourd'hui. Voilà, je pense que ça répond aussi à ce que j'ai dit, à la question du, de Sadibou, pourquoi le 17, on n'était on était pas là. finalement, je suis en train de foncer, hein. après tu reviens derrière. Quoi. Après ça, il n'y a pas de contradiction. Hein. Vous savez, euh, on a dit à la base, il est clair qu'il y a eu des erreurs manifestes que tout le monde a vues, que ce soit de Yewi, de Benno. Même euh, certains de Yewi, connus, ont dit comment est-ce qu'on a pu faire ces erreurs-là. Ça, c'est fait. Maintenant, quand ça, c'est fait, quand les listes doivent être validées, il revient au Conseil constitutionnel, en tant qu'autorité légiférante, de donner maintenant, en conséquence, la décision juste. Et justement, le problème, il n'y a pas de contradiction. C'est que le Conseil constitutionnel n'a pas pris la décision juste, qui devait être équitable pour toutes les deux parties. S'ils avaient dit, pour Yehui, cette liste, elle n'est pas bien parce que conformément à l'article tel du Code électoral, votre liste des suppléant ne doit pas passer. Pour Yévi, votre liste de ne doit pas passer parce que, parce que, que. On parle de la question de l'indissociabilité des listes. Donc quand une liste a un souci, ça entraîne l'autre liste. Donc c'est toutes les deux listes des deux coalitions normalement, de notre point de vue, qui auraient dû être rejetées. C'est la décision juste qui aurait dû être prise. Maintenant, si dans cette décision, le Conseil n'a pas eu le courage de prendre cette décision, et prendre une décision qui laisse Ah non. Ils n'ont pas eu le courage historique de prendre la décision de dire à Benno Bokk Yakaar, votre liste de suppléants euh, comporte des problèmes qui font que ça doit être rejeté. Comme les listes sont indissociables, elles doivent être rejetées toutes les deux. Yewwi Askan Wi, vous aussi, vos deux listes doivent être rejetées. C'était ça le courage. Ils ne l'ont pas fait. la, la, la, direction des élections, coordonnée par Antoine Félix Diom, un ministre de l'Intérieur partisan, a pris cette décision pour sauver la liste des titulaires Benno Bokyakar et le Conseil constitutionnel, malheureusement, n'a pas eu le courage de dire non. Et c'est ça. Et partant de ça, Yehui Askanui est victime d'une injustice. Lolo moi deug. Finalement, Yehui Askanui est victime d'une injustice. parce le traitement n'a pas été équitable. Il a privilégié la coalition au pouvoir avec toute la crème de leur, de euh, de leur euh, euh, je sais pas, de, de ceux qui sont investis. Et pour Yehui, il y tous les leaders qui sautent. Du yoon du dëgg du yoon dañu war a yemale wax nañ ko fii avant ñu ne ah conseil constitutionnel par parloo bu mu am bépp liste bu ñu war a rejeté nañ ko rejeté kenn ëppaliwut kenn au Sénégal on l'a dit ici mais la décision est injuste et elle est injuste il y a une injustice contre Yewwi Askan Wi ça il faut le dire je pense que c'est bon ci asalaamaaleykum gannaaw bi ma leen yoon nuyu sama naataango yi fi nekk euh, gis nañ ne depuis boobu ba léegi yéen ngi ngañ li nga xamante ne moom moo nekk sénégalaise bi rawatina nag conseil constitutionnel ci yile élection waaye euh, gis nañ ñu bëri nee ne naaw euh, kii di ñii di yeewi askan bi admettre leen seen erreur bu ñu def waaye tamit Benno Bokk Yaakaar ba ñëpp d'accord ñoom ñëpp dañ leen a waroon a éliminer waaye fan yi dañu gis ne naan euh, pour dëkk bi am jàmm dañu war a éliminer waat list yëpp ñu defaraat ko ndax yéen euh, gis ngeen wax jooju noonu jaadu naam wala déet ndax ànd ngeen ci wala déedéet euh, beneen bi may waxaat yéen a ngi wax léegi le 29 bii di ñëw da ngeen di engagé wu ngeen yëkkati ay kàddu Aliou Sané mu ngi koy wax léegi yaa ngi naan message moom ngay jàllale Macky waaye bu ñu déggee kàddu yi nga wax message li nga wax ni ay menaces lay gën a nuroog que message bu ñuy jàllale. beneen euh, bu ci topp moo nekk arrestation yi nga xamante ne nemmeeku neen ko gannaaw bu manifestation bu huit bi euh, manifestation bii nii jàll ki nga xamante ne mooy bu Géejawaay Ahmed waaye tamit euh, député yi député Mame Diarra Fam ak Déthié Fall aussi naka ngeen gisee seen arrestation ak ban jàngat ngeen ci am jërëjëf bon ngi tudd Aliou Bon, concernant sur euh, les déclarations d'Ousmane Sonko sur le cas de concert, cas, casserole, euh, klaxon, est-ce que vous êtes d'avis de cela quoi? En plus de ça, l'ONU Khar, otage, quelle est votre décision par rapport à cela quoi? Oui, bonjour. Euh, désolé, je pris de court la conférence. J'ai deux questions. Ah, euh, Amadou Bari, iRadio ITV. La, la première, c'est comment interprétez-vous euh, euh le prétexte de l'administration qui est, qui euh, celui, aujourd'hui on est dans une période préélectorale et que selon la Constitution, euh, voilà, il faut observer un certain silence et une certaine neutralité. Comment vous, vous l'interprétez pour, pour refuser quand même le droit euh, de manifester. L'autre question, et là on a un pour aborder, il y a trois opposants qui sont aujourd'hui en prison. Quel sort euh, leur, ils, ils doivent, euh, doit être réservé Quel sort Est-ce qu'ils doivent être libérés Vous, quelle est, euh, votre position là-dessus En plus de cela, un autre député qui a été arrêté le, le Vous avez dit que ce jour-là, ça s'est bien passé, mais quand même, euh, il euh, y a eu ce cas-là. il a été arrêté pour offense au chef de l'État. Qu'est-ce que en votre position là-dessus Merci. Allô. Euh, donc, merci hein, à notre sœur de Dakar, Buzz, hein, pour votre première question. Euh, vous savez, dans le processus électoral, le consensus, il est important. quand on arrive à des impasses comme ça, il y a eu des pays où ça a été très compliqué. Quand on reste arc-bouté sur certaines choses, c'est compliqué. On ne peut pas sortir de crise. Mais il est important qu'il y ait des discussions. Nous, n'a pas de solution toute faite. Mais on sait que euh, la première exigence, est Macky Sall qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête de taper sur l'opposition. C'est qu'il s'arrête d'utiliser la puissance publique pour réprimer des manifestations pacifiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de tout mettre en œuvre pour que tous puissent s'asseoir. Il y a d'autres partis de coalition aussi qui ont fait ce qu'il fallait et qui, qui, ont passé le cap euh, de, de, de, de, la validation des listes. C'est des Sénégalais. Mais je sais que ces gens-là aussi, ces femmes et ces hommes qui sont dans ces coalitions, mettent par-dessus tout le Sénégal et la stabilité du pays. Si on part de ça, pense que Macky Sall, s'il arrête d'abord, il est possible que les gens puissent faire ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait de larges concertations et arriver à quelque chose pour pouvoir tenir des élections législatives qui soient crédibles et apaisées. Donc c'est ça notre avis dessus. On ne fait pas de menaces, mais quand la démocratie est atteinte, des principes que nous partageons tous en tant que Sénégalais et auxquels nous, y, tenons, tu tiens une manifestation après euh, la mort de trois Sénégalais, dont un de 15 ans, je viens d'apprendre comme ça, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, qu'il y aurait un quatrième mort. On ne peut pas le dire aisément, on ne peut pas le dire avec la joie, on ne peut pas le dire en riant. Il n'y a que ça, l'heure est grave. Et de nos visages, c'est ça qui sort. De ce qu'on dit, c'est ça qui sort. L'heure est grave pour ce pays. il est l'heure pour Macky Sall de s'arrêter. Et c'est ça. Ça, tu peux pas le dire en étant cool. Euh, le prétexte, il est fallacieux. Tout le monde sait que la pré-campagne, euh, surtout le texte du CNRA, ça concerne même une partie de la presse, la presse audiovisuelle. C'est ça, c'est fallacieux. C'est vraiment fallacieux. Encore que, si vous voyez bien, Yewwi Askan Wi actuellement tal dañ leneen luy lu dul campagne ils sont en train de manifester pour protester en tant qu'observateur rek ah même si on pousse ça plus loin je pense que l'opposition Yewwi Askan Wi tal nañ leneen lu dul campagne il proteste donc c'est fallacieux loolu la plupart de ceux qui les observateurs la société civile euh, tous s'accordent à dire que c'est fallacieux tu verras aucun Sénégalais sérieux qui puisse te dire que oui, l'arrêté préfectoral, les deux points sont défendables, que ce soit risque de trouble à l'ordre public et cette question de pré-campagne. C'est fallacieux. Tahaoul. La Constitution est au-dessus des arrêtés. Donc, lol aussi, quoi. Concert casserole. Man, pour moi, il faut bien l'accueillir. Concert casserole, il n'y a pas de forme de manifestation plus pacifique. En 2011, on avait appelé à ça, je, je me rappelle. on le fait ailleurs. Type de manifestation pacifique, là, pour man Mansar, c'est un bon signal. C'est un bon signal. Parce que c'est une. C'est papa, tout le monde à la maison. Donc pour moi, c'est une bonne opportunité pour que Macky Sall s'arrête, pour que les autorités s'arrêtent, qu'ils accordent, si le droit de manifestation pacifique est accordée à Yewi Askanui, telle la Constitution le lui permet, en tant que coalition de l'opposition, Yanamar n'a même peut-être pas besoin d'y être. Pour préciser, le droit de manifestation, le 29, tel que la Constitution le permet à la coalition politique Yewi Askanui, leur est accordé, qu'ils puissent le faire comme le 8, ils l'ont fait, Yanamar n'a peut-être pas besoin même d'y parce que tout se passera dans l'état une opposition politique qui tient une manifestation pour, pour, pour, pour, pour s'exprimer. Mais ah, si Maki le refuse, le 29, ce sera, ce sera désormais l'affaire de tous les Sénégalais. Pas que Yanamar. Yanamar, il sera dans ce cas. Pour défendre cette démocratie pour laquelle on s'est levé en pour défendre les libertés mais aussi pour défendre tous ces principes auxquels on croit et qui fondent notre lutte et la lutte de beaucoup d'autres dynamiques citoyennes et de la société civile. Mais c'est mais c'est arbitraire, c'est des détentions arbitraires. Je l'ai dit, quand vous voyez le maire de Guédiawaye qui est arrêté à quinze km du lieu de manifestation, mais c'est pas normal. Hein? Quand vous voyez Déthié Fall qui est qui est arrêté au siège de son parti, Quand vous voyez Mamdiara Femme qui va aller pour rencontrer Barthélemy en tant que député qui a été arrêté aussi, c'est anormal. Ça, c'est des pratiques du régime de Macky Sall. Vous avez vu dans le passé récent, et vous le voyez encore, ces détentions euh, préventives. C'est-à-dire, on t'arrête pour après, une fois qu'on t'amène aux frais, pour Senkeldal, il voit maintenant pourquoi, pourquoi on t'a arrêté. C'est anormal. c'est anormal, c'est des détentions arbitraires, c'est pas digne de notre démocratie. le 23 juin, euh, le jour du maire Gadou de Macky Sall, Abdoulaye Wade avait posté des policiers devant chez lui, il n'arriverait pas à l'obélisque. le 23 juin, Abdoulaye Wade avait posté des policiers devant le domicile de Macky Sall, il n'aurait pas pu être de l'Assemblée avec euh, celle qui est aujourd'hui notre première dame, C'est aussi simple que Il faut juste être à la hauteur. Alors, allô. ce que vous ne pas un risque, le fait de vouloir rejoindre la rue le, le, le, le 29 euh, juin prochain euh, parce qu'on a constaté que la plupart des jeunes refusent maintenant de suivre euh, les leaders de Yewwi Askan Wi lorsqu'une manifestation est, est interdite. Euh, alors, parce que la fois passée, excepté Dakar, euh, on a constaté que dans la plupart des autres localités de, de la capitale, voilà, c'était le calme plat. Les gens vaquaient tranquillement à leurs occupations. Est-ce que donc Y'en a marre détient toujours cette capacité de, mobilisation ou d'influence un peu sur le comportement des jeunes L'autre question au lieu de prendre de choisir un camp, est-ce qu'il ne fallait pas jouer euh, la mission de bons offices, ne serait-ce que pour euh, jouer la mission de, de, de, de médiateur entre l'opposition et, et, le pouvoir, euh, comme vous dites que le pays actuellement est dans une impasse. Merci. Euh, question yi am na solo capacité de mobilisation tu sais à un moment donné de l'histoire du nit mooy opposition du nit mooy mouvement citoyen boo déggee ñu ne opposition jafe-jafe yi la maintenant ça se cristallise autour de quelqu'un ou d'une ou d'une groupuscule de gens loolu moom mooy opposition après bu fekkee ne fuy métti <laughs> fépp la méttee soxlawul sax ngay mobiliser soxlawu ko je pense que ne Y'en a marre depuis 2011 mi ngi fi nekk et c'est pas pour rien coup bu nekk jël nañ ko sosal bu nekk sosal nañ ñu ko lu ne inventel nañ ñu ko fu ne jaar nañ ñu fa Macky amul lum tëggul ci ay mboot pour pour rësaxal ñu mais comme ñi ngi résister boobu léegi alhamdulilah et la et, et la mobilisation elle se fera naturellement gars yi yónneetuñ seen seen seen maar de Sénégalais yi kenn yónneetul maaram wala di ko yóbbante gars yi ñooy génn dem wane seen maar fële kenn xaaratul kenn xaaruñ ay caat Aliou Sané de xaaruñ ay moodoog paate gars yi dañoo sonn sénégalais yi ñoo fatigué dañuy génn xuux ñu génn ma ne la yow loolu jarul sax débat beneen bi mooy ñun duñ ay waxtaankat non <laughs> mënuñ toog di et puis waxtaan pour mu am day fekk nga ki ngay janoon sax mu respecté la quoi. mais Macky ne nous respecte pas Macky ne respecte pas les Sénégalais nañ ko ci Covid bi pour la première fois ñu dugg pale toog ak moom ba ci Sonko sax demoon na toog ak moom ak ñeneen ak ñeneen ñi musul dugg pale mu wax ay kàddoom yëg jël alal gi koppar gi jox ko jox ko goroom Mansour fay mu def lu ko neex dégluwul kenn Macky moo dégluwul kenn quand ça l'arrange lion yi gagné mu oo opposition bi mais ñëpp xam nañ ne gëmul li mu def c'est-à-dire que quand ça mun na def benn cinéma nii woon nañ ñi médiation pour mu am li ciy njëkk waxtaan pour mu am li ci war a njëkk mooy Macky Sall na dàq Antoine Félix Diome mooy li njëkk parce que Antoine Félix Diome partisan la mënut organiser élection kooku mooy premier problème bi ci nii màcca ne élection bi mënut am parce que ka koy ka ca nekk di décider kooku jubut nit ñi gëmuñ ko bëgguñ ko wóoluwuñ ko parce que moom mooy premier problème bi dafa nekk partisan dafa far wane na ko ba pare amul décision bu mën a génn bu jaar yoon loolu mooy njëkk am d'abord après ay waxtaan ak Macky yooyu ne ko paaye dem defi ñun mënuñu waxtaan ak Macky parce que euh, rapport rapport bi moo dul moo dul moo dul sain xam nga nit bi ngay toog di waxtaanal mu leeral la ngay wax ak moom moom gëmut ko yow ñëwagoo may gëmul na yow war na laa mën a déglu deful ñu nawle Macky deful benn sénégalais nawle yéen ñii di presse bi defu leen nawle quand le pays brûle il préfère s'exprimer ci média international France 24 lay dem TV5 dem beneen média dem. maa yow ban journal mu nekk ni yow buur ool Macky bu ñëwee loo ma laaj ma jox la koo fi xoolal yéen ñii ñëpp bu ngeen dajaloo woon laa la wax oo Macky sàll du ñëw parce que fonkul askanu Sénégal deful sénégalais yi nawle c'est ça la vérité en commençant par la presse suy wax bitim réew lay dem waxi su dëkk bi di takk taal na avion am daw làq ay njabootam ñenn ñi dem ci ay hôtel ak ay yooyu donc amuñu interlocuteur man mënu dem naan Macky kaay ñu médiation xalaatuma ko li ma koy wax mooy samay quatre vérités bàyyi li nga nekkee il faut pas être amnésique 2011 yàggul Moustapha Niass tey bu assemblée indee coow te nga yoroon sa xeer taxaw war nga rus c'est ça la vérité ñii il faut le dire la vérité langage de vérité bi nga leen tenir mooy ñu fàttaliku ne 2011 barki Demba Ndiaye la barki Demba Ndiaye la quand je je revois ces images man damay am kersa rus bokk ak ñoom tribune 2011. te vous ne savez pas ce qui se ce qui s'est passé en il venait nous dire booy bu ngeen fi nekkul dëkk bi tàkk jàpp jàpp leen ci yéen lañ ci yaakaar ñoom ñëpp tous autant qu'ils après bu affaire yi ne kurum ñu daw dugg seen ay oto ànd ak seen ay garde du corps bàyyi sénégalais yi nekk tey ñu naan ay booy yi bu leen génn nag bu leen nangam ak sàngam parce que xamuñ ñoom fuy métti moo tax et je vous dis une chose ce pays là pour mu stable il faut que Macky lâche du lest il faut que Macky revienne à la réalité il faut que Macky accepter que ne sénégalais yi ragalatuñu ko loolu mooy wax ji xoqatal bi amoon au début état de grâce la woon moom interprétation mooy dama liggéey sénégalais yi dañ maa ragal damay màtt damay tiidalaate mais yow nit mën na laa napp napp la cinq ans nga xeex ak moom ba xam ne kii mënut la ndekete yow yaa ko mën nga ragalaat ko loolu fu mu mag yi sénégalais yi ragalatuñu la c'est ça le problème fekk bu fekkee dañ la gëmloo ne la on a peur de toi on n'a pas peur de toi et ton test là pour la dernière fois là pour xool ndaka nooy defee booy dafa clair ci affaire de tiital ak tappalaate ak xoxotaate ak nangam ak nangam loolu moom moo la xam ne rapport boobu dafa changer de côté c'est lui qui a peur pourquoi il laisse pas les gens manifester waa yi léegi bu fekkee ñeme nga bàyyi nit ñi manifester ñu duy place yi ay millions et millions yu sénégalais c' ça la vérité donc man dama jàpp ne Sénégal pour mu am jàmm na yi may nit ñi jàmm moom moo yore ay yi di ko xëpp ci doomu aadama yi tant que mi ngi yore ayam di ñu ko xëpp doo ñu xëpp suñu ay ñu toog la setaan soo ñu Macky ci lum ñu woo ñu wuy ko si bu ñu indilee jàmm ñoo ko gën a bëgg jàmm fop bu ñu indilee ay ñoo ko ëpp fuuf parce que wan nañ ko ko saa su ne ko laajee ñu ko ko te dinañ ko wanaat incha allahu rabbi jaa ngeen jëf moo la fal moo la falaat dooni farandoo yàqu cinquante ans fi ne ñoo ko wax te farandoo